mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu yéen di ko tàmbulee ci njabootu Serigne Touba gi fi teew di ci teg magi lislaam yi fi teew ak magi taalibe yi nga xam ne ñoo yiir daayira bi nga xam ne moo ñu tax a jóg di am mbégte lool ci teew fi dëgg la bi ñu jëwriñ sëñ Masamba yëgalee bis bi sàkku ci ñun ñu teew fi euh, xamal ni ñu ne itam sunu rakk sëriñ Abdul Hakim moo fi daan teew euh, dëgg la màggalu poroxaan jege na te yàlla dogal ñu am fa ay kër yoo xam ne day yàkkale rek kër sëriñ bi ngir mën a dalal gan ñi ñaari waxtu wi daanañu fa fekk ñuy waajal bisu poroxaan waaye nag euh, su doon yéen dong danañu jaral jóg ndax mbokki taalibe yuy def bis di ci sant yàlla di ci sant Sëriñ Tuubaa di ci jaamu yàlla di ci def lu baax fum ñu mën a fekk xat-xat bu ñu mën a fekk danañu jaral jóg waaye sunu mbokk Serigne Abdul Hakim itam taxawaay bi mu daan am ci bis bi te am ci ngant tey sawar nañ lool ci man ko fee wuutu itam ndax bari na lu ñuy wuutu ci yeneen barab yoo xam ne waroon nañ faa dem moom mu teewal ñu kon loolu lépp tax ñu am mbégte ci teew gi ñu fi ànd ak yéen bis bis bi suñu sañoon nag dañ koy ànd ak yéen ba mu mat waaye xëy na xat-xat yi jamono ak waajtaayu magal poroxaan moo tax euh, duñu ko mane ni ñu ko yéenee magalu poroxaan googu nag xay na bala maa xóotal danaa ci jaar tuuti wax ci ndax ginnaaw soxna jaara ku ne xam na li mu toll ci yoon wi ku nu ku ne xam na ni mu toll ci diine ji ku ne xam na itam ni mu toll ci cheikhul xadim sunu sëriñ soxna soosu su amee bis ci ayu bis ji ñu jëm muy alxames fu taalibe sëriñ Tuubaa daje war nañoo tudd soxna si war nañoo wax ci moom dara soxna jaara ku ne xam na fi mu féete woon sëriñ bi ku ne xam na itam dayo bi mu am nga xam ne jigéen la joo xam ne bis bii mu am néew naa ci àdduna bi ñu gis jigéen ju am bis bu ni toll loolu nag ku xoolaat euh, li Cheikh Mouhamadul Bachir wax ci téeram bii di meneenul baaxil xadim ci moom euh, du la bett mu am bis boobu li mu wax ne soxna si ku sóobu woon ci yoonu yàlla la ku mënoon a jaamu yàlla la ku bari woon ay koor bari julli bari saraxe bari def lu baax ku toppoon boromam subhanahu wa waaye ku toppoon ndigalul kilifaam sëñ Moor Anta Sali ak yeneen ak yeneen yu mu wax ci soxna si kon soxna si su amee bis bu toll noonu du bett kenn ndax yàlla man amila saalihan fa li nafsihi la wax soxna jaar nag su ñuy wax ci moom waruñoo yem rekk ci ay jikkoom ak ni mu mel ak dayo bi ko yàlla jox waaye war nañoo xool lu ñu war a mën a jànge ci soxna si te loolu lu ci jiitu mooy li wolof naan góor baax na jigéen baax na dañu ko war a jëmmal dañu ko war a jëmmal mooy góor ak jigéen ñoo yem ci dayo ni ñu leen war a saytoo ba ñu mat li ñu war a doon su sunu borom subhaanahu wa taala waxee yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara na ngeen wattandikul seen bopp sawara te wattandikul ko seen njaboot waxul njaboot bu góor gi waxul njaboot bu jigéen gi njaboot gépp la wax kon lu tax ñu baree bari su ñu amee doom ju góor def ko mbégte te suñu amee doom ju jigéen léeg-léeg duñ ko def mbégte lu tax ni ñuy sonne léeg-léeg ci njaboot bu góor gi duñu àgg di ko sonne noonu ci njaboot bu jigéen gi ngir ñu xam seen tiine xam alxuraanul karim tàggat leen ci jaamu yàlla yar leen bañu doon jaami yàlla yu mat sëkk loolu laaj yu mat di laaj la te gën ci mi def salallahu taala alayhi wa sallama waxoon na ne képp ku am ñaari doom yu jigéen yar leen yiir leen tàggat leen ba ñu majeur ëllëg yow yowmal xiyaam yàgg man nii la ñuy def den kon nak am njabot bu jigen yar len tagat len ci jaamu yalla ci def lu bax nonu la am njari am na fu gën ci mbindeef waxe itam ne ko am ñetti doom yu jigen yar len tagat len bañu dem kër yalla garanti na la aljana kon nak war nañu gëna sonno ci tàggat njaboot bu jigéen gi yar leen jàngal leen diine jàngal leen alxuraan te cheikhul xadim radiallahu taala anhu am na ku mas a ñëw ci moom mu koy laaj kenn ci njabootam bu jigéen naan ko fu mu toll ci ay at kooko ne ko su doon góor de dana mën a dem daara jàngi alxuraan sëriñ bi ne ko su dee jigéen nag ñoo ci yem kepp kon loolu day wane ne naka jekk sunu borom subhanahu wa taala lim ñu digal mooy ñu yar njaboot gépp tàggat leen ci jaamu yàlla waaye sang bu tedd bi noonu la daan encouragé ak a ñaaxe ci tàggat njaboot bu jigéen bi ak yar leen ak jàngal leen ak toppatoo leen waaye sunu sëriñ Cheikh Ahmadul Xadim moom it noonu la daan soññee ci yar njaboot bu jigéen bi ak jàngal leen diine jàngal leen alxuraan loolu nag moo tax bokk na ci li tax Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachir ay at yu néew bi mu fi daataa jóge ginnaaw bi mu defaree kër maam jaara gee ca poroxaan defar jumaa ja defaraat xabru ba defaraat fa yeneen yu bari mu ne soxna si nañ ko defal daaray alxuraan moo tax ñu mu sos daaray maam jaara gee ca poroxaan mu ubbi woon 2005 tàmbalee ko ci ñeenti téeméeri maam jaara ak juróom fukk ñu ñu tudde soxna si ñu di leen fay jàngal alxuraanul karim di leen yar ci jikkooy soxna jaara ndax sëriñ Moustapha dafa gisoon ne soxna si su fi nekkoon ba tey loolu mooy doon liggéeyam yar njaboot gi jàngal alxuraan tàggat leen def ci ñoom jikko yi nekk ci moom mu ne nag loolu kon nañ ko ci wuutu te tàmbalee ko ci ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee soxna si yàlla nag defal ko ci barke wuyu ko ci liggéey boobu ndax ñaari at rek la def bi daara ji ubbee wuy ji boroomam ci ñaari at yooyu am na kenn ci maam jaare ya fa njëkk a dugg muy ñeenti téeméer yi ak juróom fukk ku ca mokkal alxuraan ci kanamam kenn kooku rek moo ci mokkal alxuraan ci kanamam ci ñaari at yu njëkk yi mu fi def wuy ji boroomam waaye yàlla dafa dogal kooka mokkaloon ci kanamam ñu jëlaat ko ca daara ji muy jàngale fii ñu toll nii lu mat ñeent fukki maam jaara ak benn jàngal na leen ba ñu mokkal loolu nag mooy liggéey bu sunu borom barkeel te liggéey boobu li ëpp ci li koy saytu ak di ko doxal soxna yi ñoo ko taxawee kon moo tax bis bu mel ni suñ fi ñëwee te mu jege bisu maam jaara ñu mën a tudd loolu ndax kañ ci soxna yi ndax dëgg la góor ñi bàyyiwuñ leen liggéeyu soxna jaara bi ndax daayira maam jaar yi góor ak jigéen a ciy nekk waaye nag soxna yi moom ñoo nekk ci kanam kon suñ fi teewee war nañoo tudd loolu kañ leen ci fàttali leen itam liggéey bañ fay liggéey ndax daayira yi maam jaare yi ay junni junniy daayira yaakaar naa bi ñu ko mujjee saytu ëppoon na ñetti junniy daayira yi maam jaare ci àdduna bi Sénégal ak àdduna bi nga xam ne ñeenti téeméer yi ñuy dagg ci carte maam jaare at mu jot moom la ñuy dajale tey jii Cheikh Mouhamadou Mountakha moo jiite liggéey boobu ci la ñuy dundale xale yi yor leen ci ñu dolli ci ay parrainage muy ndey daara ak bàyyi daara loolu lépp jëm ci saytu maam jaar yi ba tey ñu ngi toll ci juróomi téeméer ak juróom fukk lim ba mu tàmbalee woon bu ñeenti téeméer ak juróom fukk léegi mi ngi ci juróomi téeméer ak juróom fukki maam jaar yoo xam ne lépp fondation maam jaar moo leen ko yoreel way juru xale yi dara waru leen ci ñoom du koddaay du dund du fay du dara lépp fondation maam jaara bi Cheikh Mahamadou Muntaxa jiite moo koy saytu kon nag loolu lépp soxna yi war nañ ko gën a xam ñoom ñi nga xam ne ñoo gën a fés ci liggéey boobu ngir gën a xam lañ fay def fu mu jëm ak yan résultat la jóg ndax maam jaare yi génn kat ci daara jooju te xayma ko léegi ci 398 maam jaara muy ñeenti téeméer yu manqué ñaar ñoo fa mokkale boobu ak léegi ñeenti téeméer daanaka maam jaara ñoo fa mokkale alxuraan te ñoom ñëpp dellu nañ seeni gox ak seeni kër ñii di jàngalaat seen i njaboot di leen yar ñii di jàngalaat seen i dëkkandoo ñii nekkaat ci ay daara di jàngale loolu nag su lawee njàngaleem alxuraan ci jigéen ñi law yar bi ñuy def ci ñoom jikkoy maam jaar yi ñuy defaat ci ñoom lii ñu naqari ci suñu société bi muy jikko yu ñaaw ak jikko yu yàqu loolu su yàggee liggéey boobu law liggéey boobu dëgër lu ci baree bari dana faju kon nag lu mat a xam la lu mat a taxaw la